asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp ak ñun ci turu xalifa général des mourides ci turu suñu bu sam mbooloo mi wax ci man ci gan goo xam ne gi ñëw na ci man am lum mu soxla la lay si ak bëggam ci suñ mbàkk bu su su ñëwee ci man danaa ko defal na mu ko bëggee incha allah man politique wu ma mu ci politique lenn waaye nag képp gan gu ñëw ngir man ngir suñu mbàkk bu su suñu mbàkk bu su ku ma lu ma ci waaye na xam ma nangu ah dugal gi ci barab bi ak yooyu nag ñu ciy wax dañu xamul dara fekkee jàng nañ it xamuñu jàng xam bokkut yonent bi day yàkkam de dugal na ci ñi noonu yi wax ñoom ba am na ci ñoo xam ne ci lañ doxee tuub ah, sëñ Fallu it dugal na sangoor fii ci jumaa ji ak ci barabu sëñ bi yëpp bi bi mu jubee jumaa ji ba mu sum bi ñu summi seen daal tu sangoor summi daalam edekaam eh, bi yor ko bi ak si bi kii ba gannaaw suñu daalam daal ay kaw si mu soloon kuus mi suñu fal na ko dee bàyyi ko mu yaakaar naa ne du def lu loo xam ne àndu ci ak sëriñ bi man mii li ma def ku xamul de mooy wax waaye man ànd naa ak suñu mbàkk bu sa bu wér du mu ci am ndam laa ci am waaye du ma ci am aw xas tey lii ma leen wax kenn andiwu ko fi may woowu ma ko xaw ma ko ma daal ñaar nit ñoo ma njëkk a kenn ma téléphoné ma mi ngi fi ñëw ma ne ko ah bu dee ci waxtu bu fekkee du waxtu jël de bu ñëwee dana mën a gis bu dee waxtu jël nag bu ñëwee dama gis ba mu toogee fii wax maa ko li nga wut de fii ma la yóbbu loo amut ci yow mi la bokk laa koy wax na ko ci ci yow la waaye du ci moom jumaay Tuubaa ji Senghor dugg na fi jëmbale Abdou Diouf it ñëw na ci barab suñ yaana bu suñ bi te doomi suñ Tuubaa la ko yëkkati comme tax a jóg def sa alal def sa kenn wóolu yaa am sa yéene bopp def ko mënu ma laa jàppe lenn lu muy ku yàlla nar a tax fii xal loolu rek loolu rek kullu man xadamani aw sara fa na ci wax fi lu aw sara ba ko di wax du tey wa wax fir binaaha rafi wax fir amarahum bii jami bi ko Sëñ di wax du tey man daal képp koo xam ne ki liggéeyal nga Sëñ Tuubaa nga Sëñ Tuubaa waxu ñu wut si ko am looy sàkk si moom man ne su ñëwee ci man lu mu ci bëgg naa ko def allah lu ma ci def nag suñu Tuubaa tax ma di ko def jërëjëf